téléspectateur yu ITV di len dalal jam sen émission qui nous a ñu am mbégte dellusiwaat fi naka noonu tay ji ñu am dalal euh, imam El Hadj Oumar Diène coordonnateur de la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire avons eu imam El Hadj Oumar Diène secrétaire général bu l'association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Imam Maal Dal dalal ci plateau Kenu askan wi fi ci ITV. jërëjëf Cissé c'est ngi lay nuyu di sant yalla di julli ci yonante bi nuyu auditeur ak les spectateurs u ITV yëpp. Mm-hmm. di am mbégte lool ñu wuy si ci émission bi nga xam ne day leeral day tax nit ñi tamit gën a xam day tax nit ñi gën a découvrir mm-hmm. logiquement aussi démocratiquement donc euh, émission bu am doole boo xam ne vraiment Sénégal yëpp a koy seetaan di ci leerlu. Mm-hmm. ndax kennu askan bi la wax dëgg yàlla. jërëjëf. alors imam euh, gis nañ euh, commission bi nga xamante ni euh, jamono ji yow yaa ko jiite coow li nee na cour coow li bëri na alors sénégalais yi tamit di poser ay questions ndax fan yii rek incha allah ñu dugg si coor gi coow li bëri na loolu yëpp daan si ñëw ci kanam tuuti. Iyane mhm. Thiam ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ba mu fi jógee ba tey gis nañ commission bi.

moo la fekk si. te ci laa nekkoon it. si naka la la fal bi fekk imam. maa nekk secrétaire permanent wu commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Mhm. depuis vingt sept ans. ñaar fukki at ak juróom-ñaar. ma nekk ci ci liggéey ak IAN rahimullah ñu ci liggéey boobu ba tey maa ci nekk maay organiser ni ñuy séentoo weer bi maa yore téléphone yi maay jokkoo ak famille religieuse yi. Moi, commencé observation un jour avant jour observation bi ak le lendemain pour faire courrier bi pour aussi aussi bien les rédactions que le ministère de l'intérieur et du culte ko tous les chefs religieux donc ci non lañ ko Monsieur a depuis le temps bi Mourchid ya nekul fi wala démissionné sax Autant par Ousmane Camara moko démissionné vraiment fait commission qui a fait ci de ñaari julli ñetti julli. Mhm. alors il a démissionné aussi a assumé un pendant huit mois. Et comme période jëm ci Moustapha ak Abdou Serigne Abdou Aziz je suis euh, euh, nañu a bi gën ko rek. Mhm. ndax gedd baaxul. L'Islam, kenn du ci il am ci ci jouer ba confiance nga confiance. da nga war continuer ba nga échoué ñu doog la teg gi mais buñ la bàyyi rek parce que ñii def nañu lii wala ñii wax nañu lii nga gedd dem déedéet lislaam boo ci nekkee da ngay liggéey ba keroog nga ci céexal bul bàyyi benn yoon hmm. biñ ko motiver waatee Serigne Abdou Aziz yàlla na ko yàlla yërëm junior ak El Hadj Moustapha Guèye mi fi nekk. Hmm. ndax El Hadj Moustapha Guèye bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sas commission bi ndax El Hadj Moustapha Guèye moo doon wax weer wi feeñ na moo doon wax dog leen

affaire bi, parce que il est arrivé ñu dakh ko ci ji grande mosquée mais du man mako dakh imam Maodo Sylla moko dakh par défaut. loolu nak adina ay animosité yu grave xam nga que nek secrétaire général d'une institution bu dara à décision buñ ko jëlé yow bind wax. Mm-hmm donc loolu bokk na ci contentieux yi am sans yu privé yi ñu mënul wax. ak yoo xam bon il a des familles yoo xam ne mënuñu ko wax tey. Mhm. mais nous, ñaar ñoo màggandoo ñoo ñoo évolué donc donc y lu am la c' c'est dans le passé. ça n'a fait ça du ci dara. léegi moom la fait le grand imam de Dakar man génne moo ko ci dara j'ai même quitté la grande mosquée pour yaatal ko mais il suffit que. grande mosquée de rek non j'ai mon bureau là-bas. Oui, am nga fa bureau. am naa bureau grande mosquée. mais grande mosquée en tant que telle depuis ban at depuis presque ay huit ans ngi nii. du ma leen waxal du ma leen defal mais là ci la bokk. oui parce que dans les papiers je suis être secrétaire général de la grande mosquée. mais doo leen agi ma agir benn yoon ci affaire grande mosquée. wax dëgg yàlla donc man xëccoo là bañ ak coow ak wax. Hmm. mais alors donc tegal ko euh, imam euh, Ratibu euh, grande mosquée imam Moussa Sam dafa contester mhm. commission nationale de concertation sur le croissant lunaire mais l'olu sa gestion dana xaw doy war non commission bi mënu imam Ratibu grande mosquée. imam Ratibu grande mosquée batam grande mosquée la M. ah bon il faut il une mosquée omarienne. mais quand même. il mosquée am mosquée lu muy représenté si réew mi. état comme oui. Le yi moomuñu ko état moom moom jumaam. Mhm. moo fa teg imaamam di fay. comme les yi nag ñooy leen natif euh, de Dakar ñu jox leen ko qui ñu gérer ko mais le directeur de l'Institut islamique moi, le directeur de la grande mosquée. Mhm. et le directeur de l'Institut islamique état à ko fa parce que imam la. Mhm. pour au cas où comme li fi amoon bi Maodo c'est le gaañoo ñu toog quatre ans amuñu imam loolu c'est pas normal légui ñu ngi ni ibi juma yi juma yëpp ngi julli grand mosquée mënu julli pourquoi il y a des choses il faut les traiter dans le fond et la forme loolu sa dañ ci ñew euh, ci donc loolu logique la grande mosquée ba église boîte de nuit yeeg stade yeeg lamb jeeg yëpp ibi nañu mhm. mais jullite fi ñu jullee ñu dekk ko benn nit muy muy chantage ni ñi ci loolu te mënatu mais quand même est-ce que kii moo taxoon quand mbas mi. mën nañ mbas bi jeex na mu yàgg les gens sont. waaw mais non mbas bi jeexagul. mbas baa ngi nit ñaa ngi def masque yi. oui nit ñaa ngi piqûre. oui nit ñaa ngi laal gel yi. Mhm. nit ñaa ngi def espacement yi. kon grande mosquée dañ ko war a ubbi. dañ ko war a ubbi loolu mooy logique nit ñi di julli. jumaa ji pour julli la jumaa ji du armel. Mhm. du bàmmel du xabru jumaa la. néegu yàlla dañ ci war a julli. Mhm. léegi ñun ñi dëkk en ville pour ñu julli dañuy dem ba Masaalikul Jinaan da ngay fay jël car rapide wala nga jël taxi dem julli ji jumaa jël taxi hmm. ñëw. mais peut-être ak koor gi wala ak korite euh, grande mosquée mu ubbi. non si yaakaar wala. non état moo ci war a wax parce que état moo yore grande mosquée moo ko moom. oui mooy wax nañu julli sax fa lay jullee. bu jóg julliwul mu jël benn imam fal ko def fa foofu imam ñu julli mais kenn waru tëj jumaa ji. Hmm. pour le plaisir d'une personne. mais mais mais lu tax nga ni. Euh, état mo wara jël responsabilité am fal imam te actuellement amna imam bu fa nek mais imam bi dafa feebar. oui. gis nañ ko télévision. Mhm. ñepp xam nañ ko. dafay taafantaloo lool rek pour. pour pour tey imam mais quand même imam amna ñu top ci mom amna ñu top ci mom oui mais du nangu mom tant que waxul kenn du ko ibi mais loolu nekkut bu àndatuwul xelam nak ni ñi ñoo ko war a dimbali ne ko kat saway julli jot na ñu nodd ñu julli. loolu moo nekk fii ci Sénégal gi du ne grande mosquée rek moo fi am feebar wala grande mosquée ku fa julli feebar déedéet ni ñu ko ibbi julliti di julli moom loolu la war a lijjanti te bàyyi affaire weer bi mm, moomu mais mais gis nañ euh, imam euh, ratib euh, bu grande mosquée moom àndul yow li nga jiite commission bi Ablaye Makhtar Diop tamit grand sëñ de Dakar àndu si Ablaye Makhtar moom dégguma li mu wax te it Ablaye Makhtar Euh, góomu mu wax loolu. suñu sukkandikuwee suñu naataangoo yu yédekaay bii di la quotidien moom tamit àndu si. moom ci imam Moussa Sam lay. déedéet moom moom démb la ñu wax. waaye mais wax na ma ne Ablaye Ablaye Matar waxul loolu. Mhm. Ablaye Matar suma maamu jabar la. oui Budi Diallo. Mhm. moo ma ko may. kon jege nañu jege waayato yoo xam ne ga démb rek laa jóge këram di fa ñaan jabar ci suma doom. sama benn jarbaat bu doon takk benn sëtam. Mhm. bu dëkk këram. donc amuñu ay animosité maag moom Ablaye Makhtar mënu ma ko waxal dara. mënu ko waxal dara. c'est un homme qui m'a toujours estimé que j'ai toujours toujours respecté vraiment dégguma lu mu ma wax man xëj na am na lu mu wax yëguma ko dégguma ko hmm. mënuma mais alors euh, commission journaliste bi tamit moo bind. oui loolu te moom waxu ko. moo ko bind. moo ko bind te Ablaye Matar wax te waxul loolu. waaw suma goro wax na ma ko ne ma Ablaye Matar de waxul loolu journaliste moo bind loolu. Mhm. mais Aliou Moussa Samba moom xam naa xam naa ne on a des contentieux. oui kooku addina bi yëpp sax xam nañ ko. mais mais est-ce que mi jotul boobu nga xamante ni yàgg na seen diggante juboo am. Euh, ay doomu jullit ñu jiboo joxante loxo jàmm ni ñooy. xam nga lu gën a mën ci àddina. Mhm. seytaane.

gërëm naa la ci li nga ma suturaal may dund sama xel dal na moo tax sax ma tukki ndax li ma wax ne li ma li ma li am du ma topp àddina ak àllaaxira loolu mënuma ko wax mënuma ko fay kenn te def nga ko ci ngor bi may dund nga wax ma loolu ma dégg ko sama nopp wax ko sama njaboot kon xam naa ne tey bu ñu jógee dem seeti njabootam dugal leen ci coow lii jaru ko yaan dina yëngatu ci bàmmeelam te maam moom ànd nañu vingt-sept ans benn coow mosu ci am Aliou Moussa Samb bu fekkee lu mel nii muy le may lébu même bu ñu amee ay contentieux c'est d'ordre personnel mhm. c'est pas islamique c'est pas religieux mhm. li ñu jotee du loolu affaire àddina la am na amna am amna njaboot am yu mu mën wax amna yu mu mënul wax ndax léegi ñu dé bo fi waxé dara mu dess ci nopp nit ñi wala mu dess ci njabootu nit ñi ndokk yalla li

ñëw na ne ma dama bëgg a nekk président des imams. ban association des imams et oulémas wala. mën na ko waaw mën na ko loolu mënul nekk parce que fal nañu imam président ba pare te congrès moo koy fal bu congrès falee nit nga ñëw ne nañu dàq Moustapha Gueye jël la loolu rafetul. mu ne ma da may xeex mën na ko déet xeexuma la loolu moo nekk Moustapha Gueye association des imams du association des imams lébu. Mhm. ñun mën nañu def suñu association des imams lébu yow nga nekk président bi mais association nationale. Qui ki nekk Ndar ci la bokk ki nekk Louga ci On y kon yamul Dakar rek. oui, national. tout doux. des éléments, des imams et des éléments. oui borom xam-xam et ak parce que imam yëpp. Mhm. ay borom xam-xam lañu mais borom xam-xam yëpp imam. Mhm. oui alors Konakok euh, commission nationale de concertation sur le croissant lunaire jamono ji mën imam euh, Elage Omar Diène Mom, ne Mouyaoumi yow mi ngani ni yaa ko gis nañ aussi serigne Ahmed Cissé Ndiégeen amna na ñoo xam ne moom lañ àndal. am mhm. aussi ñu àndal and ak Mohamed Bouchra gay mhm. li ba kañ. waaw xam nga kenn ku nekk daf ci am partition. Cissé Ndiégeen est malade depuis 9 ans ñewul ci association ñewul seet si bi bu ñu waxal yàlla. depuis 9 ans ñewul ci réunion yi ñewul seet si bi mu ngi dund maa ngi dund. mais si commission mais si commission bi la bokk la bokk. Mhm mais dafa gëj a ñëw teew. ñëwatut. ñëwatut. waaw bi Iyane gaañoo ñu xam af na affaire xaalis bi ma ko waxee ci li ñu dogo commencé ñëw. mais justement euh, alors commission bi euh, enjeu financier yi dafa bari. kon mbir mi xëccoo bi wàllum xaalis moo ko waral si sa gis-gis. moo tax ma bëgg gouvernement bi dindi affaire subvention bi teg ko fële. na bàyyi affaire subvention bi. subvention bi mu toll si ñaata trente. trente millions millions.

famille am ñoo dem. Mhm. pour ne pas que subvention bi jëge këram ñu dem jëli Cissé Ndiéguène te Cissé Ndiéguène mënul nekk sax euh, coordonnateur c' est un chef religieux. Mhm. parce que dañu ne Tidiane Mouride euh, Khadr Layen kii ñëpp ay président la ñu. Mhm. mënuñu nekk coordonnateur di rabaissé wu dañ leen di bàyyi seen rang de président. léegi nag ñu jëli ko ne ko kaay nga ñëw nekk coordonnateur. jël doomu Iyane bu def 37 ans en Amérique ñëwoon fii rek càng fii ci Covid ne kaay nga nekk euh, secrétaire permanent te yooyu de xam nga affaire day affaire warul nekk ci kër. Ah, warul nekk mbirum warul nek mirum famille. warul nek mirum famille warul ñu don alors yow si sa gis-gis euh, da nga japp ni 30 euh, millions euh, yi nga xamanteni mom le état bi jox commission bi da ko war arrêter nako arrêter tant que xaalis a am. day am ay enjeu. Tout coow lu yëpp xaalis war a. mais surtout les malades se sont réveillés les morts se sont sur ont ressuscité pour affaire khalis bi buñu wax Bouchra Bouchra ça fait 22 ans qu'il n'a pas siégé au à la commission lunaire pour cause de détournement. Hmm? ah oui nous avons ñu def colloque international le président Abdou Diouf 3 millions Zakat haous joxe 5 millions le PNUT joxe 2 millions 800 000. le code diplomatique joxe 16 millions muy 29 millions. Hmm. ñu def séminaire bi ba pare mun a la bi daw Libye. Hmm à ce jour yéen gisatu ko. mais mais mais le problème aussi euh, ñoom li nga leen di accuser ñoom tamit si seen gis-gis est-ce que ñoom jàppuñ ni problème légitimité dafa poser aussi yow. déedéet man je suis le secrétaire permanent. texte yi ñoo ko wax. Mhm. statut ak règlement bi man maa war assumer intérim bi te assumer. mais ñoom xam nañ loolu. bu baax mais lu tax ñu bañ nag. déedéet xam nga enjeu wu xaalis fu mu am. Mhm. loolu nekk moo tax nañu dindi affaire xaalis bi tant que xaalis nga am problème day am. Mhm bi fi xaalis nekkatul xam nga bi ñu tudd xaalis bi gisuloo kenn man depuis 5 mois maa ngi siégé di defar di doxal kenn yëgul amul benn coow yëfu iyaan bi sax kenn yëgu ko woon il a fallu que sa famille jóg au lieu que ñu nekk dans le deuil ñoom ñu ngi contrôler la succession de iyaan bon bu ko contrôler aussi euh, le compte bancaire. Mhm. bu ko contrôler aussi la CONACOP. Mhm. quelqu'un qui a mis 37 ans à l'étranger nous ñëw te di diriger ko nous ko xamul sax weer yi ci olof xamul weer yi ñaata fan ak ñaata weer am doomu avec tout ce qu'il a fait il peut pas venir andi benn rek non fait partie des membres il y a eu des réformes. Mm-hmm. alors euh, ça fait 9 ans qu'il n'est pas venu. Mm-hmm. donc il peut pas.

dina dinañu gënu am lu leen metti si image bi nga xamante ni moom mooy dégagé wu si commission nationale bi. benn image terneeru ci. ah ndax coow coow am na de. waaw coow moom. coow fu mu am ndax mbir mi yamatul léegi si si weer bi feeñ na wala weer bi feeñul weer bi gis nañ ko wala weer bi gisuñu ko mais kuy jiite commission bi loolu coow la. man personnellement image bi nga xamante ni baaxul si commission bi. déedéet baaxul si dara xëccoo baaxul si dara. oui xam nga Macky Sall bi ñu ko fi falee ñoom Decroix. Idrissa Seck ñepp jógoon nañu ku nek wax na wax quelqu'un ne peut pas disparaître 29 ans nous tay légitimement y a eu des réformes il y a eu des conduites et il a un passif qui doit il doit faire un bilan financier avant de. Mm-hmm. kon kon li ne mel. jamais. jamais. moi j'ai été investi dans les règles de l'art

wax leen sax nous sommes à un mois du ramadan prévenir leen jox communiqué de presse donc j'ai à moderniser di consulter euh, les scientifiques am le calendrier calendrier lunaire ba 2037. Euh, am ay kii yoo xam dama ko xam paramètres yo xam li du ñëw rek toog di seet ko xam. mais légui xam nga xam nga problème bu buy poser wu jamono jii. Mhm. koor gi lu si des euh, bëriwul léegi sénégalais yi kan la ñuy déglu. fi dëgg nekk. kan la ñuy déglu ak kan moo war a wax ni weer bi feeñ na wala weer bi feeñul. man de dinaa ko annoncé parce que man lañu ñu fal. mais ñeneen ñu ñu ngi contesté. non contestation moom mënul ñàkk. oui. pataas moom gën a ñam bi loolu fii lañ ko fekk. oui wala lii tamit man kii ànduma ak kii mais lii du politique. Mm. loolu ci politique la am. politique gis nga dëccee bi mu mënatul ànd ak Idi. dafa dem créer parti kon kon euh, ñëw yii légitimement. oui légitimement loolu mo fi nekk. gis nga ne bi ñu waxee 60 millions yi. gis nga ne ay cadres religieux ñu ngi jóg. y' a 10 il y' a 10 autres yoo xam ne si guñ leen qui sont ñoom ñëpp ñu ngi ñëw. ah bon ah mais bien sûr parce qu'il y a des intérêts. c'est est pourquoi j' dit pour jiite commission. mais pour nekk nga créer commission xam nga amoon les musulmans de Dakar. oui ñoom bokkuñu ci ñoom amuñu subvention amuñu dara ñoom bu totee ñu déclaré. Mhm. mais comme léegi fi gis nañu ne am na intérêt boo xam ne dafa nëbbutoon te feeñ na duñ ko bàyyil yax bi kenn moom kenn déedéet. Mhm. man soxla ma yax bi j'ai dit arrêté leen subvention bi. mais mais laataa sax euh, état bi di arrêté subvention boobu 30 millions yi yow gestion bi nan nga ko nar a tëralee. 30 millions yi waaw xam 30 millions d'euros ñu la jox. Mhm. moi quand j'ai fait l'état des lieux. parce que je ma nommé dama ne damay def l'état des lieux. Mhm. avant de prendre service. Ouais. je n'ai trouvé qu'un seul cachet. La gis La gis. ana yenen yi. Amu fa dara parce que nit ki dafa jël affaire bi def ko kërëm. jël siège bi def ko 30 millions yi ci bureau. jënd ci ordinateur. fay ci chauffeur. jënd ci essence c'est-à-dire euh, a euh, Mourchid Iyane Thiam yal na ko yàlla yërëm xaare àjjana mais comme nelaw na maanaam lu nekk suñu gannaaw loolu mën nañ ko bàyyi. moom laa lay wax su fekkoon ne ñëw na je pense moom moo gën a. moo gën a rafet moo rafet. voilà loolu moo gën a rafet daal maanaam man dama bëgg xam gestion bi jamono ji 30 millions yi si nan nga ko nar a tëralee. imam El Omar il faut mettre un bureau. il faut mettre un personnel. Mm. il faut mettre logistique bu fa nek a nekk yëpp muy ordinateur. muy un téléphone secrétaire. on a aussi des fauteuils on a des chaises bu ñu koy wala bu ñu réunion am fu ñu wala fuñu wax. te maam bu nek chaque chaque weer dañ fa am luñ koy jox. non voilà ah, loolu ah, institué institué guñ ko. parce que c'était ni am salaire. non amugul mais dafa war a am. mais normalement parce que donc il faut prendre un comptable. -hmm à mon comptable nous ñëw ngeen def de seen poche ce n'est c'est pas sérieux ki la jox subvention bu ne la faites un bilan financier vous koy wax. Mhm. dépense bu ñu un budget tu dois le tu dois le déclarer. alors comment? et le justifier. alors ma fàttali suñu mbokk euh, téléspectateurs yi ñu ngi dalal l'imam euh, El Hadj Omar Diène la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire nous avons moi secrétaire général de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal suis suis participer ci émission bi suis 88 628 74 74 88 628 74 74 alors imam jamono ji commission bi nga commission nationale de concertation sur le croissant lunaire tu nga dit, ko euh, membres que nous représentés, représenter ñoo fa représenté wu am de wala c'est-à-dire jamono ji jamono ji peut-être ñu am na ñoo xam ne sax dañu am susceptibilité. Mhm. toog mais kër diine yëpp ñu ngi si. kër diine yëpp ci la ñu bokk. ci lañ bokk mais maanaam dama bëgg xam. membre parce que siège gu ñu. oui siégé gu ñu. siégé goo leen. restructuré encore. Mhm. parce que loolu ça se fera au congrès. kër mhm. diine bu nekk. Ah, da ngeen di waajal congrès. waaw daal ne kii. kañ kañ par exemple. peut-être dans deux ans ou plus tard. dinañ ne diw moo ñu ci représenté mais pour le moment nañ doon liggéeyee. Yann mo gagne mais ñeneen ñangi fi ñu par exemple s'il s'agit de Touba dañu imam Abdou Diop parce que mom lañu mettre en rapport man ma doon communiqué ak mom ci affaire bi khadim mu ngi ci ak tamit dañu consulter am ñu wax ñu bu Touba dañuy laaj ki ñu wax Paté Diop mhm. comme mom affaire parce que Touba beneen structure la Touba ñom dañu am seen seetukaay. dañ koy annoncer ci jumaa ji. annoncé ko ci lampe Fall. ñom dañuy jox information ñun ñu leen di jox information mais du nit mo jógee Touba ñëw fi information bi rek mo ci am importance. mo ci am importance surtout. alors imam problème bu. kii kii euh, pardon. kii wax kii wax important kii wax. euh kii wax information bi mom le serigne bi jox muy wax information bi. mo mhm. koy annoncer ci jumaa ji aussi. Mhm. Touba yeb yeb ko annoncé ko aussi ci Lamp Fall. Mhm. murid yeb yeb ko. murid yeb yeb ko waaw parce que ñom dañu am sen commission spéciale bo xamné ñun suñu bëggee xibaar dañ koy jël ji ci ñom mhm. suñu amé xibaar tamit jox leen mais du nit mooy jógee foofu ñëw fi pour siéger. Mhm. mais imam problème bu nara a posé wu ren jii. si daar daar bi mom moy euh, su euh, grande mosquée dafa war a julli korité nga génn nga ni weer bi feeñ na. te imam Moussa Sam moom daf la contesté.

bu ñu ci def tamit ay règlement de compte. kon règlement de compte nga gis. règlement de compte parce que yow fi la ñu nekk ngi Sénégal ma ngi Sénégal. Mhm. kéro bi mu ne dañu tëj jàkk yi ak jumaa yi dafa génné né day génn day julli il a fallu que ministre de l'intérieur ñëw tëj jumaa ji teg fa ay barrières jox ko note de service ne ko tej nañu jumaa ji. Mhm. alors euh, jamono ji buñ koy ibi tamit. lolo koy ibi mais il se trouve aussi que il est malade et on doit choisir un autre imam suppléant je dis pas tutélaire. Mhm. suppléant suppléant Ni mon mën mais quand même mais quand même ñëpp xam nañ ni euh, jàkk wala juma dafay am euh, imam ak ñu top si moom ay naayim loolu mhm. alors kon so nee dañ war a falal imam loolu <laughs> problème da fay poser. un suppléant un suppléant. il faut bien prendre le terme. oui comme nous ma waxé Oui. un suppléant parce que lui il est le titulaire. oui. Le tutélaire, s'il est indisponible, on prend le suppléant. Mhm. S'il n'est pas disponible, on prend le suppléant. mais moom day wax ne kenn topp ci mhm. alors le cadre de la grande mosquée tey bu ñuy waxal yàlla ak julliti. Mhm. di waxal l'islam imam bi feebar na mënu julli. deuxième imam bi gis ngeen ko heureusement julli ñu tabaski bi paase julli ñu korite bi paase. yàlla des na aussi dafa mag. nit dafa vraiment bay trembler mais où sont les jeunes. où sont les musulmans lu ñu waxuñu y a un problème de fond et de forme qu'il faut dénoncer nañu nommer un autre imam mu ñëw un suppléant ñu ibbi grande mosquée nit ñi di julli y en a beaucoup. y a beaucoup de gens. kon kon si sa gis-gis tekk tekkaaral bi lu waral. non c'est que tekkaaral bi chantage là non teg tekkaaral bi maanaam euh, jamono ji nga xamante ni euh, grande mosquée wul te yow sa gis-gis nga ni dañ fa wara euh, fal ben imam suppléant loolu yëpp ken ken wax aussi te dañ ci war wax si sa gis-gis. mais ku ci wara a wax état mom mom jumaa am. donc état dafa war jël responsabilité. dafa war jël responsabilité le grand serigne de Dakar. buy doxal deug ci l'islam. Hmm. dina ko kat sama rak seram neexul kay ñu gisee nga duggal diw ak diw. Hmm. xam nga tay kenn mënul wax ne nit ñi feebar feebar bi kii na nit ñaa ngi faju hmm. donc nekkatul prétexte boîte de nuit ibbi nañu. église ibbi nañu jàkk yeeg jumaa yëpp ibbi nañu fi ñun ñu nekkoon ci avenue Malick si y a quatre mosquées mm-hmm. mosquée al Umar Umar al Foutiou ñu ngi julli mosquée de l'appel islamique ñu ngi julli mosquée Darwiche ñu ngi julli mm-hmm. grande mosquée de Dakar rek ñoo julliwul ñu julliwul fu ñu ko teg xanaa foofu rek la feebar bi am ñu ngi koy seetaan lu ñu fa mujjee duñ fa julli góor jigéen ñi ñoo fay ñëw hmm? ah mais loolu am il faut le mais imam Linga wax doyna war. Hein. mais c'est très grave on ferme une mosquée les góor jigéen ñoo fay foo tàppkatu xaalis yi tukkatu yàmbaay yi. ji tabaxu imam loolu doyna war. waar ji fan fan exactement. alentour bi yëpp ñoo fay tëdd ñoo fa nekk. band yi rek a fa nek, c'est c'est gis ngeen ko fi. ça s'est passé ici parce que la grande mosquée a abandonné en elle-même li ñu war a wax mm. il faut traiter les problèmes dans les fonds et les formes. Mm. alors. Euh, Imam euh, El Hadj Omar Diène ren ji euh, ban taxawaay nga war a def reñ ci aussi su ko defee ñëpp mën a wooreenoo ñëpp mën a ñu korite gi ñëpp daal ñu uma umanoo ñëpp ñu julleenoo alors ren ji ban démarche nga fas yéene taxawal ci commission bi maa ngi tàllal suma loxo mm. di wax billahi lazi laa ilaha illa mm. xataluma ci kenn xataloo ci kenn iyaan moo dem dootul ñëw rafetoo nañu ba mu dem du ma xajalamal ginnaawam du ma tilimal ginnaawam balaa mi dem sax moom ci boppam oo na Alaaji Moustapha Gueye wax ko ko ne ko yëpp yëpp ngi nii yéen ma ko joxoon téye seen yëf am ngeen ku ko mën a yore du mën a jox naa ko ko mais na ko téye weer yi yëpp looloo dox maa ngi koy seet di joxe calendrier yi di wax ii mais buñ ko def nag problème de règlement de compte alors da nga fas yéene liggéey ak xarala yu bees yi wala. yëpp hmm? maa ngi liggéey ak xarala yu bees yi. oui maa ngi liggéey su coow bañ a am. musulman yëpp man journaliste yi gis ngeen ne dama leen di jox un calendrier tous les mois. oui jox leen communiqué de presse ci rédaction yi tous les mois. Hmm. jox ko imam yi sur l'ensemble du territoire national tous les mois. Hmm. jox ko chez les chefs religieux tous les mois. imam nga le ministre de l'Intérieur. intérieur. tout le nga baal ma am na ku nekk si ligne bi euh, dafa mel na mbokk Kaolack mooy woote allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, déggin bi euh, neexul de kilifa gi soo mënee suñ mënee baal nga yëkkati kàddu gi. asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi bismillah. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. alhamdulilah delloo ziar. waaw alhamdulilah ñu ngi déglu waxtaan wi am na solo. Mhm. allo. salaamaaleykum. kilifa gi dafa mel da ngay déglu télé bi de. waaw waaw maa ngi leen di dégg ma ne. waaw suñ mënee baal euh, nga wàññi son wu télé bi su ko defee nga wax directement déggit bi gën a mën a mucc ayib. waaw ma ne gannaaw bi ma leen nuyoo di leen ziyaara. Mhm. allo. salaamaaleykum. ñu ngi jégalu bu baax a baax si suñu mbokk téléspectateur boobu ndax déggin bi euh, jàppandiwul dafa mel ne dafay déglu télé bi ñu ngi jégalu bu baax su mënee woote waat aussi euh, dana si nekk lu am solo alors imam mhm. gis nañ fii Sénégal euh, am na si ay jullit yi nga xamante ni ñoom Arabie Saoudite nañu topp. Mhm. am na si ay am na si ay jullit yi nga xamante ni du ñu xaar. du ñu mhm. xaar commission bi. alors ren jii si sa gis-gis yow ñoom lan nga leen di wax exactement. waaw xam nga ku nekk dafa am. wala commission bi tamit dafa war a tamit. Euh, dafa am topp Arabie Saoudite wala. déedéet xam nga. Hmm. commission bi moom. li téere yi wax ak dëkk yi ñuy wër. téere yi téere yi li ñu wax parce que defal nañu colloque. oui international moom laa wax ne waa ji yóbbu xaalis donc colloque boo xam ne Guinée Côte d'Ivoire Mali Algérie Égypte. Hmm. Gambie participer na woon nañ ci. Hmm. pour ñu régler problème bi finalement jubóowuñu ñu ne kenn ku nekk. na dem seeti dëkkam bu gisee wax moromam. loolu la ñu conclure parce que nous bu ko kii gisee bu ko par exemple les Mauritaniens ñoom nañu lëkkaloog le monde arabe. le Mali dafa lëkkaloog l'Arabie saoudite. la euh, la Guinée une partie dafa lëkkaloog Arabie saoudite une partie lëkkaloog lu euh, mufti yi wax. Mhm. bon ñii dañu ci Taxi, mënu ñu ko changer. Mhm. Sénégal loolu moo tax ñun ñu nekk ci loolu. Mhm. jàpp ci taxi, ci loolu. Mhm. ne buñ ko gisee ñu communiquer ko. buñ ko gisul ñu motali benn fan. donc comme loolu la ñu charia teg ñu continuer ci loolu ci yaxu charia bi li mu wax mooy gis bi. du tere it ñu gëstu am ay xibaar yoo xam ne dañ dëkk yëpp noonu la ñuy def xibaar yi buñ ko amee wax ko. Mhm. l'essentiel moy nit ñi teel yëg ne bi feeñ na nous ne ku nekk li ngay jaamoo yàlla yow la yow la yow la ko yàlla ci ne Arabie Saoudite laay basé wu euh, duñ ko ko tere li ñu sant mhm. mooy ñu weer suñu wax bi na mhm. wax sax wala mais da ngeen di wax information bi rek la ñuy commission bi ndax sëriñ euh, Sidi Maxtaar bi ñu ko mujj mujjee seeti di ci wax dafa nañu weeru tabaski weeru korité wax leen ci lu leen neex weer wi feeñ na ñu xam ne tabaski bi bés sàngam la mm-hmm. weer yu feeñ na korité bés sàngam la mais weeru gàmmu ak weeru màggal gi seen yoon nekku ci mm-hmm. Touba koy annoncé bu dee gàmmu gi bu dee màggal gi bu dee màggal gi bu dee gàmmu gi tamit bàyyi leen ko seedi borom mu bañ am xëccoo mu am ñaari gàmm ak ñetti gàmmu mais weer bi daal bu ngeen amee information bi rek dem leen ci weer bi feeñ na. Mhm. te it loolu moo mujjee loolu moo nekk. saa yu weer ñu ne weer bi feeñ. am solo weer bi fan weer fan la jeex amna solo communiqué de presse bi tamit looloo ciy nekk. am na solo amna kenen keneen euh, ku nekk si ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi bisimilah. sëñ bi ñu ngi leen di ziar. ah delloo ziar fa nga ñuy woowee. Euh, Cheikh Ibrahim Ngom Sokone. Bismillah, ñu ngi lay déglu soo mënee baal nga yëkkati kàddu gi. Mhm. waaw gannaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziyaara. Mhm. Euh, di déglu waxtaan wi at ni amee solo. waaye dafa am loo xam ne ñun julli ñi ñëpp dañ ko war a xam. Mhm. muy mbiri weer ci Sénégal. dafa am loo xam ne boroom xam-xam yëpp naqari na leen métti na leen te am na loo xam ne daf ci tumuranke muy lan. Euh, mbiri weer dafa aajuwu xam-xam. suñ ko mënee suñ ko mënee dégg bu baax alo mm-hmm. ma ne ma ne mbiri weer dafa aajo xam-xam. Mm-hmm. dafa xa dafa aajo woo xam-xam sharia mm-hmm. boo xam ne ki ko war a jiite nga xam ne parce nag bu ñu fàtte ne koy war a jiite dafa dafa war a jiite jullit ñi ci Sénégal. te nag Sénégal dafa yaatu dafa bari ay boromi xam-xam te it nag bu ñu ne léegoo léeg nga ay nit. jiite ñoo xam ne lañ lañ leen jiite dàquñ leen ko ramuñ raw leen ca kon suñ waree jiite lu mel ni mbiri weer ci Sénégal dañu war a dégg nit muy wax sharia wala mu wax xam-xam boo xam ne nit daf ciy mën a teg baaraam waaye ba léegi déggaguñ ci critères yi xam-xam déggaguñ ci benn critère boo xam ne dafay doy sharia nit mun na la ñàkk doy waaye dafa war a doy sharia imaam mun na la ñàkk doy waye dafa wara doy sharia bu doy sharia rek critère da fay mat ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne jamono dina ñëw yàlla dina fi jele xam xam-xam te jele bi likoy waral moy da fay jël ñi am xam-xam bàyyi ci ñi nga xamne xamu xamuñ loolu wax ne inna allaha la yaqbidu al ilma intizaan yantaziuhu min al ibadi lakin yaqbidu al ilma bi qabdi al ulamai hatta lam yubqi aliman dañuy dem ba benn borom xam-xam dooti fi desati mu ne su boobaa ittaxaza naatu ru'aasan juhaalan su boobaa julli ñi dañuy dem ba seet ñi nga xam ne amuñ xam-xam li ñuy wax xamuñ ko comprendre ko ñu jàpp ci ñoom mu ne fadallu wa adallu su boobaa moom dafay réer réeral nit ñi kon mbiri wer ci sénégal critères yi mooy xam-xam moo ci jiitu xam-xamu sharia borom dañu war a xam ay atem ak euh, tolluwaayam ci xam-xam ñu natt ko waaye ba ma déggee ki toog ba léegi waxagut wax xam-xam waxagut laaya waxut xadis yi nga xam ne mooy saxal weer ak niñ koy tànnee ak fu mbooloo ak fan la weer di saxee ci charia ñu doo koo nangu critères yooyu yëpp dégguñ ko moo tax fii mu nekk ñun julliti Sénégal ñi am na si ñoo xam ne tiit nañ ñun ñu wax ko ak ku wax ak ku noppi ñun ñëpp ay kilifa diina lañ dañoo yo ay jàngalekat yi diina lañ jërëjëf waaye su sañoon daal mbir mi euh, tegu ci charia tegu ci yoon yow mi laaj sax dégguma nga laaj ay critères ci diina ak mhm. charia. moo tax maa ngi leen di nuyu di leen gërëm loolu rek laa amoon lu ma ci sànni wa salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf di la gërëm baax euh, di la sant Imaam ma bàyyi la nga nga tontu ban réaction ngay am si intervention am. Euh, moom waxul dara waxu boppam la wax. ah waxu boppam la wax mais moom dafa bëggoon dégg ay charia. bon nekkuñu ci débat loolu. Mhm. amul benn obstacle. wala benn lu leerul lu fi waxul. ndax weer wi man ci depuis vingt sept ans. ñaar fukki ak juróom-ñaar. kon a. ci novice. Mhm. li a dama ko comprendre dama ko xamul man waxuma loo xam ne nekkut. Mhm. déclaré aussi lu Il y a leen du affaire règlement de compte affaire ou personne fi aussi pour loolu fi mm-hmm. ñëw pour leeral ñëwuma fi pour débat politique ñëwuma fi pour débat contradictoire mm-hmm. donc li may wax dama ko xam dafa nekk Sénégal amul ku ma xamul ci affaire weer bi amut mm-hmm. bu passé mii man nañu xam amul keneen ku ci wax tey nga ci wax man nag duma arab jullit la imam là, jàng naa xam naa mun naa ci bii boor mun ci bii boor. Mm-hmm. mais du ma fi ma suis chirurgien dentiste de profession qu'est-ce que ça a à voir. ça ne regarde pas les gens. Mm-hmm. c'est mon gagne-pain j'ai des cabinets j'ai des cliniques des laboratoires. Mm-hmm. mais loolu nekkul c'est pas la vie man li ma nekk ci laa ne te ci laay nekk dañ ma fal ci ay postes responsabilité islam moom lu muy wax waxu boppam la. waxu boppam la waxu boppam la waxu ñoom Bouchra yii la rek wala yii juddoo loo fii juddoo loo fale juddoo loo man sama baba daan jiite jumaa ji grande mosquée. Hmm. dama la mi jël ku nekk xam na ko. Modou si la suma doom bàjjel na ku nekk xam na ko dafa jar ci trop man sama bopp laa xam maa ngi liggéey ci laa jot ci laa jamono nekk laa nekk. nekk ma ci affaire debaa yoo xam ne c'est hors sujet li muy wax kon ren yëguma ko sax. Hmm. kon daal moom lu muy wax moom. yëfu boppam lay wax yëfu boppam lay wax. yëfu boppam lay wax. Mhm. ñun affaire wu weer bi la ñuy wax feeñ nañ wax ko feeñul ñu wax ko. ci laa doon weer yi feeñ yëpp maa koy wax. yaan sax buy wax maanaam ko fii la feeñ fii la feeñ fii la feeñ maa koy bind. Mhm. maa koy doxal. kon daal jamono jii ni nga ko jiite danga koy yelloo. dama ko su ma la su ma la déggee bu baax message boobu nga bëgg wax. dama ko teg ci yoon. Mhm. teg si falma duma ma duma décourager ma découragé ma désister. ah bon jamais. do gedd. duma ma découragé décourager découragé. ma désister do désister do démissionné. duma ma démissionné te même ministre de l'intérieur mënu ko dindi ci man c'est une affaire privée et religieuse. Hmm. mais amna ñu commencé dox que euh, jàmm di gis ministre de l'intérieur di waxtaan ak yow tamit oui y' a beaucoup de lobbies qui se sont levés. Hmm. beaucoup. Hmm. j'en ai l'information te yàgg naa ko wax. mais quand même tank jam bobu amna solo. mais tank jam amna solo ci lépp. jàmm gën ay yaa ngi def ay jéego. jàmm gën ay. man dama ne ñew leen ñu liggéey je vous tends la main ñun la woon léegi bi amé li amé deux mois après yeen ngeen jog dal né non ñenn ñoo leen yëkkati sax jogu ñu mhm. parce que kiñ ci andi il est malade depuis 9 ans ñewul ñu dem jëli ko solo ko mu ñew ñëw ko waxal. Mhm. xam nga lolu day andi. euh mhm.

parce que nous avons le fond du problème Si nous avons le fond du problème nous devons rejoindre mhm. et ils sont en train même de faire des démarches ça a cassé beaucoup de mouvements Nous la nous moi ce que je lance l'appel non, la état arrêter sous subvention parce que tant qu'il y a une subvention mhm. ça amène des problèmes Vous voyez le cadre des religieux Nous ne nañ jël de de bi des choses. bi si nous bi le tal Ils weer xamuñu ko sax dañuy wax seen famille lii parce que ça s'est passé politiquement peut-être ils ont réussi ci diggante Macky Sall ak kii donc yeneen Macky Sall ak kan ak euh, affaire Sonko bi mais apaiser dëkk bi mhm. mais lii jarul coow dafa am lu fi nekkoon nekk fi jógewu mhm. fi peut-être ay posi guerre de positionnement rek moo am mhm. mais loolu du dara nañu seet lii charia wax te nekk ci dëgg rek moo gën a simple kon kon kilifa yi même suñ la ñaanee ngir mbir mi euh, nga bàyyi mu sedd hmm, nga teg suuf wala nga démissionné. doo ko def xalaatoo loolu. ak tànk jàmm yi nga xamante ni jug na am na ñu jug di gis ministre de l'intérieur di waxtaan ak moom di xool tamit parti xool tamit jàmm nan lay dellusiwaatee ba commission bi vraiment coow bañ si am. mais loolu moo gën pour ñëpp. Hmm. moo gën pour ñëpp mais pour seul ma toog Macky Sall sax naw du ko nangu moom ci bopp moom ñu fa ci bopp réew mi. am na ñu ne ko puusal ma mu bañ am na ñu ne ko ñoo bokk affaire mu ne moom mooy ñun nañu liggéeyandoo ñun ñëpp di yëkkatindoo di tegandoo di waxandoo di defandoo. Mm-hmm. mu am jàmm ñu nekk benn benn fi amoon lu tax ñu koy def fukk benn bi fi nekkoon ku ci gisul sa bopp mën nga ne ah man de gisutuma sam bopp ndax lii moo tax ñu rectifier ko lii du parti politique gisutuma ci sam ma dem fi créer parti keneen ki ne gisutuma sam bopp ma dem créer ci sam parti ku nekk naan maa légitime mais deux trois mois yi passé kan moo ci doon liggéey anañ fu ñu nekkoon lan lañ doon def ku seet weer bi ku xamal nit ñi fu weer bi toll ku waxoon nit ñi ñaata fan a des ci koor gi bu ñu sabati liggéey bi xam nga du ma lekk ci cere ji naa ci xëpp suuf loolu dafa rafetul jullit du def loolu jullit lu mu fekk da ci def aqulaay taalaam mm-hmm. da ci def aqulaay taalaam ci njub ci dëgg sans jël position seet lan mo rafet lan mo wara nek ñu dox ci wax ci def ci. Hmm. Imam El Hadj Omar Diène euh, maa lay gërëm baax di la sant. jërëjëf. Hmm, sa dernier mot. Euh, di lancer appel encore. oui euh, Sénégal yëpp. Hmm. ne leen ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. ñoo bokk liggéey bi. du Omar Diène mooy seet weer bi man moom moo weer wi yàllaa ko moom. dañ ci doon liggéey rek ànd ci. boobu ba tey ku ci ñëw ci nga ma fekk. ku ci dem tamit ci nga ba bàyyi mais terewul maa ngi ci ndax kilifa moom ma ci tegoon ba tey jii jógewu ma ci muy El Hadj Maodo Sylla recommandation yi bu mu ci defoon ak Moustapha Guèye ba tey maa ngi ci bàyyi uuma ko am naa leneen lu ma def mais lii dafa bokk léegi ci man ndax maa ko doon liggéey yaan day ñëw déclaré rek liggéey bi yëpp maa koy def bi mu fi jógee ak tey maay def liggéey bi mhm. léegi la ci yu bees yi am ndax intérêt yi intérêt yi nañ ko dindi te bàyyi ñu ñu liggéey suñu liggéey

bu association nationale des imams et oulémas du Sénégal Mon tay tey suñ gan ci émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs spectateurs, tamit ñu leen di gërëm baax di leen sante amun sen fay di gërëm baax ñu nekkoon ci walum réalisation bi ba suba inshallah, ñenti waxtu. Hmm,